gaaw ci guddi Macky Sall woo ma téléphone ne ma dama la doon nuyu di la baalu àq ci tabaski gi ak damaa naman sëriñ Saliou ba koo siyaare si ma ne kon ne ni ñuy def mooy da ngay bàyyi ma wala sëñ ba Seck ma woo ba gaaw ci guddi ne ko ba waxal ma sëriñ bi ne ko Macky Sall nee na dafa bëgg a nuyu si suba ma woo sëñ ba ne ko neel sëñ bi ñëw naa sëñ Tayba daal di ñëw ne ma ubbil ma ma dugg ma yëpp ma yóbbu ko jox ko ndékki biñ ñëwee ma ñëw ki sëriñ bi ne ko sëñ bi ne mbakke da ngaa sonn lool moo tax am na gan koo xamante ne ñëwoon na fi ne newoon nga ñëw na waaye jox nañ ko ndékki jox naa ko kafe maa ngi dem ñaanal ko yewi ko ndax xam naa ne moom rek am dugg na rek dina dina dina bëgg sëñ bi ndeysaan ci baax ga daal di fekk mu sóonu mu daal di jóg mu ne ëpp naa def jox ma gi mu jox ko mu teg kaala dama dama woo ko mu ñëw ma ki ñëw waaye baat bi ci am solo mooy loolu ngay bëgg loolu laa ba ngeen dégg ko bi mu ñëwee dafa toog mu ne ko la ma yónni woon son son yi bu Cissé ci yow ñaari baat ya ma la waxoon booba léegi maa ngi lay déglu yaa ngi loola waxtaan ak moom ñaanal ko ne gungeel leen ma ko ba ca oto ba sëñ Moustapha son yi bu gungeel leen ma ko ba ca ba kon moom li ko dimbali mooy màggalu Tuubaa dafa jot ndox manqué kenn amul ndox sëñ Sadio ñëpp ñëw di ko jàmbat sëñ bi yërmande ji mu bëree ndox mi manqué sëñ bi loolu def ko xaal sëñ bi génne te déwén sa sëñ bi génne 3 milliards woo ko ñu wax Mamadou Guèye SVTP nekk damaa bëgg ñu yokk ay forage ci dëkk bi Mamadou Guèye yaakaar naa moo ko mag Macky xaw ma Macky da koo dégg ki ñëw ne ko sëñ bi xaalis ba nga bëgg a génne bàyyil man ma def ko bu ko def bi mu ñëwee def loolu ci déwén sa ndox mi bari lool saas bu ubbi rek mu xelli gaa yi ñëw gi sëñ bi di ko sant naa ko sëñ bi sa magal gi ren ni mu neexee ndax ndox mu bari mi wallahi alazim yéen li may wax nii xam ngeen ko yéen yaa ñaata yéen ngeen wat ay saako ay oto ay fani fan di wër sañcaan yi di ko séddale du jeex léeg-léeg ngeen fëgg kër rek wàcce saakoob ceeb wàcce saakoob dugub wàcce saakoob suukar daal di jàll ten tamit boo kenn tudd sama tur am benn bis mu am dund bu bari bu mu bëgg a séddale di abbo magasin bu mag ba nekk njaareem ca booru Sambe woo gouverneur su ma jumul alkaati Traoré la ne ko damaa soxla magasin bu mag ba ci njaareem bëgg koo abbo gouverneur loolu na ko day ministre sàngam moo ko yore xanaa ñu waxal ak ko sëñ bi ne ko su ma sañan day nga wax bu dee sama soxla la soo xam ne sa man la ñu bañ ko ko wax waaye ñu wax ko Macky Sall moom mu wax ko ko kon nag loolu moom li mu am dafa liggéey dafa liggéeyal Serigne Saliou kon boog ñun ñëpp nañ maase ñaan réew mi jàmm am bi ndax Serigne Saliou kat am na lu mu joxañ de xéewal yi ñëw nii xéewal yi ñëw nii sëriñ bi lu mu waxoon sëriñ bi lu mu waxoon mooy ne des na tuuti ci kanam kuy dimbali nit na nga ko dimbali léegi ndax des na tuuti ci kanam kenn du soxla ndimbalal kenn sëñ bi nee na ñaar la suñu borom mënta dimbali mooy ki ko wóoluwul ak yàkkamti rek sëñ bi nee ki ko wóoluwul suñu borom ñaar la mënta dimbali mooy ki ko wóoluwul ak yàkkamti